honey go. And the people I want him a honey go. So like people I want hand a hin go. Like an hin a hin go. Like an like a hin go. Say woo, cause he more likes to be alone. Like the beach I'm lying again go. Like I'm second hin the babina go. Sabina go, can even lie Sabina go. Sabina go, hip, Sabina go, Alaba. choqué na fi. yaa ngi ma fekk ma choqué choqué bu métti. Bamba da nga parce que nag na fi. veste bi waaw. Ah, kii dina tàng kii li mu sol dafa métti de. dina ko bës kanam. mais loolu tamit box moom nii ah wala ah, la muy def loolu. mbaxana la doo dindi mbaxana bi ak lunette yi. MD doo ma zoomal Bamba mi dimbalee ma loolu. ah lu di nga ko baal bu ko baal bu ko baal de. waaye hmm. kañ la ñu tey buuba waaw buuba yow ci loo nekkoon. waaw ñu ngi woon nii ah nekkoon ci préparation yi d'ailleurs ñu ngi woon ci préparation clip bi ñu nekkoon nii et puis ñu ngi doon waajal Dombaaw House loo xam ne suñu propre idée la. Mm-hmm. Euh, série de presque trente épisodes et tout. tu vois parce que affaire bi moo tollatul foo xam ne du ut buzz kese wala genre mm. siw nañ quoi mm. ñu dañuy ñaan buzz boo xam ne wala siw boo xam ne day ànd ak réussir tey bu la sa yaay xam ñaanee 1000 francs nga mun ko ko jox mm. wala ku la jegee bu la ñaanee 200 nga mun ko ko jox mais tey nekk si réseaux sociaux yi di feeñ pour feeñ ñii rek si man amul sens quoi mm-hmm. xam moo tax képp koo xam ne moo xam sama frère nga wala sama grand frère nga nga nekk si TikTok bi mm-hmm. dama pour inspirer wu pour xool noo si dugalee say say affaire mm-hmm. monétiser ko pour di mën a recevoir de l'argent mm-hmm. parce que tey temps bi moo tollatul lenn image ça coûte cher tu vois mm-hmm. nekkatul lépp fii tey tooguñu leen fii. Mhm. yéen pour ngeen di daw di wax seen xéwal ak seen lii et tout. après mhm. ngeen ñibbi weer bi dee. Mhm. amul luñ jox télé sax da fay liggéey nit di la xoolee bëtu yaa ngi ay millions. alors que sag rek ngay demee. tu vois benn greffage bi nga yore chaque jour balaa ngaa ñëw make up ba sonn ñëw toog juste pour mu rafet. tu bu dee tamit góor nga tamit benn xam nga benn yere bi ngay teel a fóot ko si pressing. defar ko juste pour préparer sa émission bi ngay def lundi. mu métti trop ngay jaayante taxi di jaayante car rapide tu vois je suis en même temps un livreur je suis en même temps un vendeur de mad mhm. tu vois su ma neexoon man artiste la bu ma jaay mad mhm. wala bu ma nekk livreur kon si man lay métti mhm. parce que corona ñëwoon na fi képp ki artiste moo xam si loo mënta nekk safoon na si yow tu vois mais tamit benn affaire bi mënuñu ñaan parce que ay làkkat lañ ay joolaa ko quoi non système musique bi moo tax quoi xam naar lañ génn moo tax ñuy musóor alors booba bi ñu leen di ko invité fii si euh, plateau bi c'est vrai que yoroon nga euh, maturité wax yaa ngi livré kooku yaa ngi jaay màdd pour peut être jëm ko boole li nga xamante ne mooy humour bi ngay def mhm. mais tey bi ñu la invité waatee beneen discours bi nga indi dafa di lu bees lan moo la inspiré ba nga xalaat c'est-à-dire yaa ngi ñaax sa morom yi waaw yaa ngi ñaax sa xalaat ubbi page YouTube yaa ngi ñaax mën na leen ñaan may leen lan moo waral boobu lu waral loolu parce que tey comme ni nga ko waxee sànq ñi ngi wax sànq waxu ay mhm. nit ak moromam nga jam ko et tout ti vois nit da lay nga yor benn dàll bii nii rek mënu la ko ñaan mënu la ko def dara mu soxoree la ko mhm. pour suba nga def tànku neen te doo xam mhm. lan la suñu dëkk bi loolu moo fi nekk te da ngay am xarit nga ne kii a jël sa téléphone doo ko def da nga naan ah mooy loolu wala ngeen tase sax waaw daa yëg succès quoi man man yëg succès boobu noonu <laughs> laay ragal ñu wax ma ko moo tax musuma génn parcelle musuma uti appartement feneen tu vois chaque jour ma chaque jour maa ngi parcelle su ma ñibbee nii sama booy ko ñi laay toogal ba ma amee livraison yu may def et tout barki dem moo si mujj daf ma waxoon livré ma à 11h dama livré livré ba guddi jot mu ne ma nañ ko bàyyi ba suba xam nga kon kuy daan doole taloo di di defante ay soxorante wala ay affaire yoon mm-hmm. la plupart ñuy toog si mbedd yi ñoo am di wax si ginnaaw nit mm-hmm. ñu toog si bopp ko ñi wala ñuy toog foo xam ne moo xam waxtaanu kaay la mais soo yi encore parce que dëkk bi moo tollatul foo xam ne amul amatul benn temps bu ñuy perte lu dul suñu yaay ñoo ñu sonal hmm. ak suñu papa yi parce que da ngay toog sa papa jël âge sa yaay jël âge mënatoo ko jàppale si dara lan nga hmm. koy jàppale lan du wax bi ngay wax si kaw nit ki moo koy indil xaalis mënul nekk c'est impossible foog nga jëf mhm. nga def laata sàkk mu def bëm tiktok foo dugg moom la ñuy tiktok mhm. ñëpp di ko kii ñu gis nga indi woon fii tamit defoon si indi woon benn benn paa boo xam ni moom nga defoon euh, sa papa waaw ci mhm. affaire yi père maa ngi koy nuyu au passage père Daim. waaw mais père bi père père maa ngi koy nuyu au passage père mi ngi si cimetière yi fa lay liggéeyee quoi. mu nekk paa bu baax paa boo xam ne xam nga. tépp kay ku am foofu xam nga ñun ñëpp yàlla na yéex quoi mais tey képp kuy yóbbu foofu mm-hmm. foofu mooy defar tomb yi mooy defar lépp mm-hmm. moom moo ma bëggal boppam quoi moom moo ma fiil bëggal ma boppam mu ne ma frère looy def boole ma si et mais des fois mag la du chaque jour la ñuy déranger mag. ku baax la ku baax la parce que sama moromu papa la et waaw nit bu woyof mooy def loolu. per day ñëw ñu fekkante mi saa et tout moo xam moo Lo lépp ñu ñëpp lay tooñ. Mm-hmm. tooñ xam nga paa bu mel noonu la quoi. Mm-hmm. léegi nga def moom mu def boobu affaire bi bës bi yéeg ba ci kaw après gisatuñ bu ko dëmbaat. non après après. ñu gis la nga ànd stand stand bi la moo ko indi. Mm-hmm. parce que ñun dañoo commencé. dañoo commencé. loolu la nee la. <laughs> Ah. <laughs> léegi après ñu avancé ñun dañoo commencé ba suñu son bi génnee décembre <laughs> décembre 2020 ñu avancé tuuti deux mois lañ ci teg xam nga tu te rappelles corona bi ñëw vite fait. Mm. jotuñu tourné amoon nañu ay avance si école yi lekkoon nañu ay avance moo xam waroon naa dem Kaolack Tamba yooyu yëpp mm. mais tey yàlla mooy indi benn barage day da sant yàlla bu ko tegee sa kaw quoi mm-hmm. même fi ngeen liggéey peut ngeen am benn nattu boo xam ne day ñëw si liggéeykaay bi mais ñëpp ñoo koy accepté ndoo mais tey jeex na ñu ngi relancé waat def naa sama clip indi ay mbanquux ku mos def loolu waaw maa ngi innové quoi ñaari mbaam ñaari mbaam ak fàllu mi ak benn moromam waaw ma ànd ak li ak bopp ñu nara non genre damay bëgg man of chaque fois di créer quoi du du ma bëgg di def loo xam ne dañ naan su kay ne def na ko wala daba il a triché quoi mm. damay bëgg saa yi moo defee rek ñu naan il a sa propre touche mm. parce que ba may ñëw damay indi sama yére bu ngand sama dàll yi ngand kuy def challenge indi ay bool ñu mm. indi ay cours tu vois yow nga def challenge indi ñaari mbaam waaw ba ma def challenge indi ñaari mbaam léegi maam Boubé lii mooy la. Hmm? loo jublu maam. non comme ça nit yi dañuy génn seen oto yor seen i xaj. wala seen muus. wala seeni muus man ma génn sama oto ma yor sama mbaam. mbaam laa fiil ma ne xam nga sama mbaam waaw laa yore. maa ngi remercier xam nga kumpu moo ma ko jox. kump moo jox mbaam yi ñoo bokk ko nekk grand bu cool. léegi léegi léegi bu ma euh, rek loo ci wax. dëmbaaw rek ça veut dire c'est buuba kese la quoi mm-hmm. maanaam buuba la quoi dafa gëm boppam nekk si benn affaire boo xam ne mooy si milieu showbiz bi ma sentir que man dañ ma war a wax ma a dëmbaaw rek mm-hmm. di nuyu au Alpha Thioum moom nga xam ne lu mu tëggul baaxul mais loo ci loo ci way laa bëgg a wax en fait buuba lan nga ci way dëmbaaw non lii nii dama si way sensibiliser en même temps parce que dama ne gars yi namoon nañ ma soo xoolee clip bi di nga gis gars yi si ginnaaw ñu si mel ni xale yi ne 4 ans ba 5 ans 6 doo dem seen kër te doo dégg xale bu ne la bëgguma buuba da mbaaw c'est impossible moo tax sama clip saa bu ma xëy def damay sóoraale xale yi tu vois mhm. léegi nag si laa wooy Alpha Thioung comme d'habitude mu ñëw tëgg affaire bi mhm. yóbbu may studio ñu créé affaire bi gis nga am na jeu entre lingom ak euh, bopp ñu ngi nekk si biir studio bi et mhm. mu nekk benn affaire bu nice selon moi Euh, léegi lii jàll na peut-être yaa ngi ci promotion wu euh, single bi clip bi. Mhm. Euh, lan moo ci topp lan mooy projet yi. ñu ngi waajal Burna booy bi dañuy def premier partie incha allah ak daju bi. Mhm. ñu ngi ci doon waxtaan ak Raxu Prod xaw ma xam ngeen si mhm. waajal et puis tamit on a des choses à à Kaolack. ak Gambie incha allah ak les arbres de Noël et tout. di wax képp koo xam ne fan si Bouba Demba nga et tout. ñu ngi waajal benn tournée spéciale bu mag en mois de décembre incha allah. ayca Marina noo def. maa ngi nii Nafissatou namu na woon xanaa namu naa la de namu yaa ma raw maa ngi leen bu baax di nuyu Jeanne di nuyu Ajaratu ak suñu invité bi ak ñi ma bokk plateau bi yëpp tey moom xale ah. sax man maa njëkk jovial ànd ak yéen ñëpp. du mm. nag ñu mariner les couleurs. waaw xanaa ma indi affaire bi war ma bàyyi ba ci kanam. Mm. ma leen ci kanam ñu dem lamb ne. ay maman lan la. bisimilah koy dee. maa la raw neen ne. lu muy dee. Aïcha Antoinette coup de gueule la waxtaanee ci euh, euh, mhm. euh, livre. bi nga xamante ne moom la jaari sow bind ak Mohamed Bougassar voilà bu baaxee rek ñu dem seetaan élément bi ñëwaat. di jaari sow ci ab entretien nag boo xamante ne def na ko ci ab média français